waaye ca Youssou Ndour combat bi da cee réservé woon de trop boo ko waxee mu ne làmb ji wax waruma ci ma ne ko lan mu ne ma wax waruma ci làmb ji waaye nee naa la lu waaye doon jaay léegi mu lamb Malick Ngom ñaari mbër li làmb nangu ak li làmb bañ ku re sifle mo len boole coup de sifflet moo leen tàqale su ma sifflet amul màtte amul gadje waaye amna dorante kur bañ tàcc tàcc yi di naaw nee na ko bare nga laa ilaaha illallaah tey dimanche 27 août Ibou Laye production woo fi ndeysaan Ndiaye ñëw indi Mor Kankang Balla Gaye ndeykaane lu waay doon jaay tey ñaari mbër yaa ngi lewto Mor Kang Kang wan leen ginnaaw Youssou Ndour ngeen jàkkaar lool Mor Kang Kang Youssou Ndour ñaari mbër yaa ngi noonu ña ngay lewto waaw dafa taxaw Mordi la ko mayam déet. ah doy na waar. Youssou Ndour Mor Kang Kang. Youssou Ndour Mor jëm ci côté normalement. Mor Kang Kang Youssou Mor Kang Kang Youssou ñaari mbër yaa ngi leewtoo Mor Kang Kang woon leen ginnaaw Youssou Ndour ngeen jàkkaar lool def nga ko teewaayu Ndiaye Tine ak Balla Gaye 2 Youssou met na waaye demul Mor a ngi arrière Youssou Ndour a ngi dox ci kaw Mor Kang Kang a ngi arrière stratégie la wala Youssou Ndour door na moo tag Leewtoo bi Yusuf Ndour Mor Kang Kang Youssou Ndour Mor Kang Kang jàppante nañu xeex laa illallah Yusuf Ndour tey dafa indi xeex Youssou Ndour Mor Kang Kang jël ko sa téléphone jël ko sa téléphone Youssou Ndour Mor Kang Kang Mor Kang Kang na eh rëpp nañ ci suuf rëpp nañ ci suuf Mor Kankan Youssou Ndour Mor Kankan Youssou Ndour Mor Kankan Youssou Ndour laa ilaaha illallah Youssou bu ko forcé combat bu ko forcé da ko bëgg a forcé Youssou ngay dóor laa ilaaha illallah Ndour Mor Kankang Youssou Ndour tey dafa décidé Youssou Ndour Mor Kankang ndeysaan waa géej waa kenn nooyatul waa Bawol ne tekk te kaaral Youssou Ndour Mor Kankang Youssou Ndour Mor Kankang Mor Kang Kang jàpp na ci loxo Youssou Ndour ba. mu bañ bët. Mor Kang mu bañ mu bëgg a plaqué. eh Mor Kang Kang Youssou Ndour. Mor Kang Kang li mu bëgg ay bu ko amee. na ko laay laxee. nga wax ak moom. waaw na benn bi daa sifflé mu door ko arbitre sifflé waat na. ci diggante Mor Kang ak Youssou Mor Yusundur Yusundur Youssou Ndour Youssou Ndour ngeen jàkkaarlool Mor Kang Kang wan leen ginnaaw bare nañ fi léegi yéen 3 minutes yu saf saf Youssou Ndour a ñu dox ci kaw Mor Kang Kang Youssou Ndour Mor Kang Kang waat nañu waat nañu ko Mor dafa xar jëppet xar naa ko fee gis de. ah mbaa xar ak Youssou Ndour ba tey ci digg géew gi. nee naa la bëri nañ fi 3 minutes neex tàng jër. yow caméraman yi di tiit yow ngay ree lan moo xew loo gis lu ma gisul xalil Kang Kang Youssou bi mu rombé sànq ma yow na combat bi non combat bi da Mor ko ko mu Mor Mor Kang Yu Sundur, Ndour ku ci nekk yaa ngi jàpp ngemb Youssou Ndour dajale Mor a ngay dajale Youssou ak Mor fii lan moo fi war xew Youssou Ndour Mor Kang Kang arbitre àtte na leen Youssou Mor Kang Kang warale na ko laay la xay la laa eh karaate eh. dafa diis dafa diis gann la gann mais Yu Sundur fa dugg nañ ci sa biir. ey Mor Kankan ey Youssou Ndeye ngeen na ko. Youssou Ndour Mor a ngi bëre. Youssou ngi door. Youssou Ndour Mor Kankan. Youssou la combat bi a ngay roqo ci suuf. Youssou Ndour Mor Kankan. Ndour Mor ak Mor Kang Kang Youssou Ndour ak Mor Kang Kang Mor lan la Mor lan la bëgg a def noonu Mor lan la bëgg na ko Mor Kankang daana la ilaha illallah Youssou Ndour daan na Mor Kankang Youssou Ndour daan na Mor Kankang Youssou Ndour daan na Mor Kankang Youssou Ndour daan na Mor Kankang jël waaw neexul jàmm. parce que bi mu rombee léegi. waaw ma doon bal Youssou bi ma gis nii. non dafa liggéey bopp booy bi doole da cee liggéey. da liggéey. combat bi da cee liggéey. ayca waaw kenn waa seen vision. Ndeysaan lii leen indi woon fii ci arène nationale Mor a ngi noonu Ndeysaan Mor a ngi noonu Ndeysaan